jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb bu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen baalu àq te di leen baalu àq di leen wax na ñu ngi jóge ci weer boo xam te ne sell la boobaak léegi euh, ñu waxtaan ak yéen waaye tey nag yàlla dogal na ko ba tax nañ ñoo ngi leen di baalu àq di leen baalu àq bu baax a baax di leen wax yàlla nañ ko fekkee ay déwén yu bëree bëri bëri tey nag ñu ñëwaat ci wasaare làmb comme ni ma leen koy waxee chaque jour rek wasaare làmb lépp loo xamante ni dafay doxal làmb wala lépp loo xamante ni dafa ñor làmb rek wasaare làmb di ciy dox du ci wax ba keroog ngeen ci jëlee li nga xamante nii nii da leen gën a dugal ci làmb wala loo xamante nii day gën a leeral seen euh, xam-xam ci wàllub làmb ba tax na tey nag ñu seet ki nga xamante ni nii mën naa ne mooy làmb su ma nee mën naa ne mooy làmb ndax euh, bésu tàkkusaan bu mu mag bu nekk fekkee na ko bés bu ne fi la ko fekk. boobaak léegi nag moo ngi ci làmb ba tax na tey ñu seet si ko bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg a waxtaan ak moom kenn la dugg si ci làmb bëgg waxtaan ak moom yan bés ñoo xamante ni bokk na ci bés yi nga xamante ni nii bés yu ko gën a neex ci làmb la ak bés yi nga xamante ni ni moom lañ jëm mu nekk ay journée yoo xamante ni journée yu mag la laataa loolu nag dama koy bàyyi mu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi père nuyu naa jërëjëf maa ngi lay fay ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sëy Seydina Muhammad sant Xaadimu Rasuul ñu ngi nuyu waa Wassare yi ñuy seetaan yëpp làmb na buñ ko Wassare wax ngeen dëgg moo tax ni ngeen tuddee seen site bi jóomu leen lu ñuy Wassare lu ne yal nañ ko seetaane ci jàmm dunde ko ci jàmm lépp di jàmm moo tax seen déplacement bi ñëw ba sama kër rëy na pour man trop di leen ñaanal yàlla yàlla dafa leen jàmm. Hmm. Euh, balaa may xuus. Père Ñoxo Baye mooy surtout dëgg-dëgg wala parce que ñu ci bëri dañ naan Père Ñoxo Père Ñoxo lan mooy tudd vrai bi. waaw Ibrahima Ndiaye Ñoxo Baye laa tudd papaay Ngone Ndiaye mii di taasu lañ ma tuddee papaam ak sama papa bokk ndey baay euh, mu doon arkaati nekk adjudant chef de la police. waaye nekkoon tambour major di tëgg parce que ñun sunu askan yëpp ñii afisul alxuraan lañu ñii fara junjung lañu ñii fara làmb lañu ñun nag wàllu woowu la ñu féete muy son papa euh, son papa boo seetaanee le mandat moo nekkoon imam bi xala moo dindoon moo doon góor gi dindi woon xala ga ca àll ba kon son papa artiste la woon Serigne Ndiaye ñoxo baay jooju mu tuddoon nag ma bañ ñoxo baay ji réer parce que ñoxo baay mooy sunu maam ma bañ mu réer euh, sama papa euh, Ibu ñoxo baay nekkoon arkaat yi moom itam bañoon mu réer moo tax Ibu ñoxo baay jooju topp ma ba ji doom yi may jur sax ku ma ciy dàkkantal même ñu jigéen ñi dama dama ci teg ñoxo baay parce que bëgg mu réer daal kooku mooy Ibu Ndiaye ñoxo baay Euh, kooku mooy Ibou Ndiaye Ndiokhoumbaay dafa mel ni leer na léegi ci bopp yi ndax ñu ci bay dinaa ñoxo lan lay tekki ñoxo lay tekki waaye defe naa ne léegi moom leer na ci bopp ñi nga xamante ni ñooñu seetaan ci Wassare làmb mais MPR kañ ngeen dugg ci làmb ak lan moo leen dugal ci làmb parce que man bi ma xàmmee ba léegi euh, maa ngi leen di gis micro central moom kenn du ko téye keneen ku du te yàlla yàgg seen loxo lan moo leen dugal ci làmb. jërëjëf laaj nga laaj bu am solo noonu dama ne la ñii ñu bokk làmb ñëpp ci biir làmb la ñu fekk xanaa xamoo ne 1959 seetaan naa diggante Cheikh Mbaba ak Jibi bu waalo man dama doon élève di jàng école mais dëkkoon ci gox boo xam ne daanaka gox lamb la muy Ndimzaat mu mooy fi HLM nekk léegi Euh, amoon arène arène Lamine Gueye fa nekkoon arène Dimzat fa la nekkoon euh, arène Madoune Khoule nekk euh, fii jàkkaarloo kër sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma fii ci Colobane Fass amoon lamb muy arène sénégalaise arène Gabar Ndoye nekk Tëngéej arène Sambay Sall nekk Caaroy Géej arène Fodé Doussouba nekkoon Pikine arène Doudou Baka nekkoon Pikine arène Mbaye Dia Diop fii ñu def complexe Pikine bi tey fii ci complexe booy dugg pikin fa la arène Mbaye jóob nekkoon. waaw déedéet ci buntu pikin rek booy dugg Pikine ci station bi rek fii rajo bi ne fii euh, oxygène ne foofu la arène euh, Mbaye Dia ne woon koñ boobu la Baboy juddoo foofu la Papa Diop dëkk foofu la Falaye Balde aussi dëkk parce que foofu daanaka moo doon Pikine daal waaw ci ay jamono moo tax euh, tey jii euh, dugal nga ma foo xam ne dafa am solo parce que damay wax ne du muy mbër mbër yu bari ñoom ñoo bokk jamono euh, mais du benn communicateur traditionnel wala ngay reporteru làmb te fekkoo ñi ci làmb ñoom ñëpp nag kenn ku ci nekk rek mën nañ laa sa wala ñu wax la loo xam ne fekke woo ko parce que liñ la nettali ak li nga fekke bokkul ñun dañu fekke dañu fekke ñu bari tey boo leen ne lan moo tax arène sénégalaise nekk fas ak kan moo euh, sos arène sénégalaise duñ ko xam góor gi Kantra Fall man Mansour Diop mi bàyyu Adel Fall moo yoroon école dactylographe ba nekkoon ca Mbot boo ñëwee Sandaga boo laajtee mbot foofu ci jàkka ji fa école ba nekkoon mais comme que euh, dafa ci ay jamono euh, Alaaji Abdourahmane Ndiaye Falang man fi booba arène sénégalaise arène Bakaay 3 mu nga nekkoon ca euh, Rëbës ca ñaay cokkeer fa la fa la arène Bakaay nekkoon fii nga xam ne euh, mooy arène sénégalaise nag euh, papaay maami Mansour Diop góor gi Kantra Fall comme que dañ daan gam-gamle diggante El euh, Hadj Abdourahmane Ndiaye Falang ak Bosco Bosco la góor gi fakk pàkk boobu def ko arène tudd ko arène Bosco arène Bosco bi muy laata tudd arène sénégalaise arène bés ko soow la jëkk a tudd mais li ko indi nag ki mu tudd arène sénégalaise góor gi ma xare caam ak Baye Jibi Diop ñoo doon daanaka démarcheurs yi làmb euh, ak euh, alaaji mboor ñing papa yi biram ñing mii moo fi indi Fodé Doussouba Fodé Doussouba bi muy ñëw mu indaale le bara Barabara indaale fa lay balde keroog bi Fodé Doussouba wàccee fii ci ka ci oto lañ ko teg di ko wëral leen Ndakaaru ne mbër mu mat deux cent kilos ñëw na ci ci réew mi man mbër lañ koy jox. boobu fan la jóge woon. ñu ne man mbër lañ koy jox ñu dem ci El Hadj Abdourahmane Ndiaye Falang ne ko comme que yaa daan ñëpp te am na menn mbër mu joge Casamance mu ñëw mat deux cent kilo dañoo bëgg nga bëreek moom mu ne leen ñama daan àndal ak nii ci biir làmb hmm. ñama daan ñaana la ngi nii ñu ngi fi jóguñu fi waaye doole doole ja dem na waaye bu ngeen demee yoof am na benn xale bu ñuy wax Demba Thiaw Diène bu ngeen d'accord rek moom day bu ngeen ko joxee mu bëreeg moom ñu ñëw yoof fii jël Demba Thiaw Diène Demba Thiaw Diène njiin forêt du suba fii ci euh, euh, arène Madoul Khoule fii la ko dem Demba Thiaw Diène daane jaareen ma dul ko lee kon biñ ko fi indee moom moom defet la jëkk a am fële du suba fii waaw. moom moo dëkk Pikine ci wetu arène national bi. Pikine ci bi moo fi moo fi indi Fallay Papay Ama moo fi indi la professeur Barabara xanaa xamoo ne Barabara li mu bëri. nuyu du ma la dog am na doom bu ñuy wax fiis de Fodé. mi ngi noonu euh, Barabara li am ci ay victoire Fodé amu ko Fallay Balde amuko te fa fi andi. te leen fi andi te ñoom ñaar dem nañu ba bëri ci biir làmb. fa fa lay balde ak barabara. dem nañu ba bëri ci biir làmb. Eh, eh, eh, fa lay ko daan parce que booba fa lay da ko gën nekk jeune. da ko gën a nekk jeune barabara da daan bëri samedi. Gabar Ndoy daan dimanche mu bëri arène sénégalaise daan ba sedd altine mu bëri daan. moo tax mu ëpp ay victoire ci ci ci génération Falaye Balde nag 1963 euh, 138 combats la bëre am ci 4 défaites ak 2 matchs nuls. 1963. 1963 138 combats la bëre am ci 4 défaites ak 2 matchs nuls. ci benn année boobu. wa ah, yëpp. bi muy bi muy bi ba ëgsi 63 parce que daanaka euh, cinquante neuf la fi la fi Fodé ñëw indaale Fallay ak Barabara soixante ñu am indépendance soixante la ñu xam Fallay Baldé diggante soixante et un soixante deux soixante trois cent trente huit ci bëri am ci quatre défaites ak deux matchs nuls benn défaite ci Babou Ndiambarne benn défaite ci Landing benn défaite ci Bécaye 2 bu Caaroy Géej benn defet ci booy ñàgg ca Kaolack keroog maag papaay Lamine Samba Lamine Samba mii di wax papam chauffeur taxi la woon Falaye Balde rek la bëggoon keroog dañu dem Kaolack ñu daan Falaye Balde ñu ànd maag moom di joy di jooyee euh, kawlak ba Ndakaaru moom ngeen doon supporter wala. ku ñu bëggoon Falaye Balde papaay Lamine Samba dafa bëggoon Falaye Balde xamoon naan dina am doomi reporter parce que dafa bëggoon làmb bu nga bu làmb amee deux raxas na taxem ba mu naaj mu sànca ba rafet dëkk dagg bi yam toog ci kaw euh, euh, tribune bi di xaar nga xam ne bu euh, bu njëkk la amoon ak léegi li am bokkul bu njëkk amateur moo amoon ñu bëgg làmb ngay supporter Bécaye 3 may supporter Fallay Balde kële di supporter Maam Góor gi kee di supporter keneen ak keneen bu ñu xëyee làmb am ñun ñëpp ñooy dajaloo dem ci kër kenn mu rey xar defar njar ñu togg añ togg jàpp gars yi lekk ba suur sañca ba rafet ñëw ko ñu fekk si woon dagg bii yëpp daggal ñëpp bii ñu yéeg te duñu bokk ñu supporter di werante di waxtaan tuddante ay doom mayante ay jabar léegi nag supporter moo am. des damay gis image yu yàgg yoo xamante ni nii mag ñu njëkk ña bu ñu daan dem làmb comme ñu dem xew. dama ne dañ daan sañ set da ngay gis. Euh, maa ngi fàttaliku góor gi Issa Mbeng jaraaf Yoff papaay Abdou Nar Mbeng mm, papaay euh, Abdou Aziz Mbeng diggante maam góor gi ak Bekaay 3 dañu bëree cëk euh, arène Gabarndooy maam góor gi jël Bekaay 3 ñii ne benn sa tànk la sukk ñii ne ñaari sa tànk la sukk mu dañ ko ci ci naq bi mu toog ñu naan ñii naan Bécaye 3 daan ñii naan Mame Gor Gueye daan ba dimanche ba ca topp ak góor gi Issa Mbeng moo génne cent cinquante mille ne leen euh, euh, ne ñoom Baye Makhari tëggaat leen combat bi arène sénégalaise ñu tëggaat combat bi arène sénégalaise Mame Gor bu di ko da dóor ci suuf moo taxoon moo tax mu doon bàkkoo Bécaye 3 Bouna Ndiaye daf doon wut lu wóor far mu gën fa yées nga xam mbër lamb dafa àndoon ah, euh, sport bu ànd ak culture léegi nag culture baa ngi dem culture baa ngi dem sport bi rek fi des dóorante ay kurpañ kii déedéet làmb bu njëkk ambiance la am na ñoo xam ne tuus mee leen andi am ñoo xam ne woyee leen andi lagg bi mbëri daan lagg moo leen andi mais am na ñoo xam ne ci làmb tey sunu ay ayca jii rek moo leen andi ci làmb mais kooku boo ko bëggee xañ xay ayca ayca bi xañ xañ nga ko lambam moo tax làmb li li li mu ëmb dafa bari ñun nag ñu am fu ñu teg sunu tànk léegi parce que cinquante neuf ba nga ni ngay seetaan làmb maa tëggal Pape Diop carrière ba mu jeex. maa tëggal boo Niang numéro un carrière ba mu jeex maa tëggal Mansour Diop carrière am ba mu jeex keroog ba ma tëggalee Ndiaga Diop laa damm gala nii na bàyyi naa tëgg. dama la gis nga def lu am solo euh, ci kër euh, signature Gamou Gueye ak Sokh nga ne xale yi doon tëgg tëggal leen ma xaw ma lan ak lan ñu tëgg ko doxul ñu tëgg ko doxul nga teg micro bi jël galañ gi ñëw toog wan leen ñëpp seen xol sedd. xam nga euh, loo nekkul taalibeem doo nekk sëriñam ñun dañoo tarbiyu làmb Ipo moo daan tëggal Mbaye Guèye waaw man maa daan tëggal Pape Diop Ipo di tëggal mbay Guèye mais xaritoo boobu ñu xaritoo woon ba ñu nekkee xale xaritoo nañu plus de cinquante ans cinquante ans Ipo ànd nañ ko maak moom plus cinquante ans kon yaakaar naa ne loolu mooy ànd bu bu sincère parce que kaay ma wax nanga koy àndal ku ne da ngay ànd ak moom ci jukkoom bul ànd ak moom ci sa jukko nit ki boo ko boo boo boo bëggee xaritoog moom euh, lépp lu gën ànd euh, bu la ci bu mu la ci gën gore mukk rawatina nag muy sa mbokk di sa rakk il faut sama mbokk la sama rakk la waaw mage naa ko plus de quatre ans waaw kon kooku bu ma bu ma bokkeek moom li ñu bokk ba pare euh, xaritoog moom di ànd ak tudde naa ko doom joo xam ne 1976 laa ko de doom kon nga xam ne kooku yàgg nañu nga euh, mais nag lamb daf ñoo delloowul li ñu moom tey vingt six ans yi euh, Alioune Sarr toog ci bopp bopp bopp CNG ñoo ko gunge ba mu ba ba mu ba mu dem yoonam CNG mosuñoo defal dërëm loolu bëggoon naa cee ñëw parce que dama bëggoon dama bëggoon xam parce que lan moo leen duggoo ci làmb mais su ma déggee nga ne tëggal nga Papa Diop euh, Ipo Ngaay tëggal na ki nga xamante ni ni mooy Mbaye Guèye kon defe naa ni yàgg ngeen ci làmb da ngeen a tëgg ba bàyyi après dellu siwaat commencé téye micro bi naka ngeen ko téye dañu leen woo bi ngeen ñëw ñu leen dañoo bëgg ngeen téye ñu micro central bi wala yéen a yóotu micro central bi ba noppi xam nga alaaji Ablaye Naar moo doon micro central fii ak alaaji Mor Dior bi ñu demee làmb wéet grand papa Ngom bu caaray moo yoroon micro central comme que dama doon ñëw làmb nag te it xam naa làmb dama daan tëgg daanaka moom ma ci entraîné bu waxee ba pare ne ma ñoo ko bàyyi ma wax bi muy laata euh, euh, feebar bay génn àdduna mokkal naa mu bàyyi maag micro bi alaaji Assane Ndiaye alaaji Papa Ngom ñoo doon micro central lamb yi ah loolu yàggu dara loolu ay euh, quatre-vingt lan quatre-vingt dix huit la ñu yor micro central ba nëgë ni waaw te tëgg nañ ci waaw nañu ci làmb lóobu vingt ans parce que ku tëggal génération Pape Diop ba mu jeex nga tëggal Boy Niang numéro un génération ba mu jeex nga tëggal euh, euh, euh, Mansour Diop génération ba mu jeex njaga dugg làmb nga tëggal ko vraiment baaboo yi numéro deux mii Balla Gaye numéro deux maa ko jëkk a dugal maa ko a tëggal ci làmb kon dañu galéré ci làmb liggéeyal làmb ba dese ay wax seet nag ne ñun yóbbu nañu làmb foo xam ne ñu bari bu leen làmb intéressé ñoo tax ñun bu ñu daan dem làmb xam lu ñuy wax seer ay seer ngeen quoi booba euh, euh, ñi ñu wax saasum euh, saasumaan yi football lañ daan dem booy dem làmb ñu nag ay kii di seer mais tey ñëpp fekk si nañ ci làmb ji tey mais làmb ji dara defaluñ ñu ko ci dara waaw du président de la république du ministre du du du CNG dafa tey drapeau drapeau de chef de l'état nga ni waxuñu ma ko waxuñu ko yëpp. mais déedéet mais invitation bu ñu la invité wul plate boo ko toj fay ko du ñu dem ñu nit Alioune Sarr day bu mosaan a tëgg drapeau euh, euh, chef de l'état daf ñuy convoqué wooñu ñu ñëw mu héberger ñu à l'hôtel bu ñuy ñibbi kenn ku ci nekk mu jox la sa enveloppe ndikoongi ma koy wax léegi man nag damay euh, euh, wanatuñu dara ci làmb lu dul jéem a euh, jàppale xale yi relève bu mel ni ñun dina jafe lool ci biir làmb relève bu mel ni ñun gudduñu rëyuñu te bu ñu waxee amateur yi dégg ñu. ay ñu toog ba ci yàgg gisatuñu leen woon ci micro yi. waaw xam nga loolu li ko indi mooy borom bidigu mbagg boo xotti xool ba magasin bu mag nga cay fekk. am na ñu bari ñoo xam ne micro centrale ba leen gënal sax télévision yi ñu ne. xeex nañ ñu ci fune ne. indil nañ ñu ku ne. indi nañ Didier Gomis ci biir làmb ji. indi nañ Didier Prince ci biir làmb ji. indi nañu Aziz Samb ci biir làmb ji kenn ku ne pour jox ko micro central. mais yàllaa ñu ci may loo xam ne. Euh, mbir yàlla rek la. mais lan moo tax ñu leen ci doon xeex dafa am wecc bu ciy génn bu nit ñi dul gis. wala dafa am euh, payoor boo xamante ni da ciy génne par mois tamit. xanaa xamu ne ci article CNG. microcentral CNG ko war a fay. Hmm. ñun promoteur bee ñuy fay. te du doomu adama yëpp a jub. am na promoteur yoo xam ne balaa lamba jee tas. ñu wàññi sa xaalis jox la. mais am na promoteur yoo xam ne dañuy tëgg ba pare taal seen oto ne fes. kon chaque combat promoteur bi dafa am loo xamante ni du koy yëkkati teg ko ci seen loxo. dañ ko naan temps nga ñuy fay. buñ ko fayee ñu yoral ko buñ ko fayul ñu bañ a ñëw làmb ja seetaanoo fi diggante Gris Bordeaux euh, euh, euh, ak Balla Balla fii cee stade bi ñëwuñu keroog làmb ja mais keroog doomu aadama yi xam nañu lan la ñuy jëriñ ci biir làmb mm-hmm. ah, mais nag doomu aadama bu fekkee dafay sonn ci mbir di ko di ko doxal parce que ñun fekke nañu daan mbër lu xib lu bi yóbbaale fekk nañu daan mbër dagg mat dagg nopp bi yóbbaale. daan mbër luqi bëtam yóbbaale. yóbbaale ñu wax nga ne per baa ngi nii fekk nañu doomu aadama bu daan mbër dagg noppam yóbbaale. ba kon bu ñu demee ba làmb civilisé ba nga xam ne ay bu njëkk mbëkk dafa amoon. mbëkk mbëkk nit ba Babacar Thiaw mu mbëkkee bara bara bara dafa xam ba mu mbëkkee bara bara bara bara dafa xam. ku mel ni euh, euh, euh, faga numéro deux daf daan mbëkk mbëkk na fi Ibou Zangor Ibou Zangor xam mbëkk dafa amoon yooyu yëpp ñu dindi ko dindi mbëkk dindi matt dindi padd moom ba nga ni ci bëri la parce que padd bëri la xale yee ko mënul gisoo gride mm-hmm. heure bu la jàppee loolu mooy kolma day teg loxo yi ci sa ci say mbagg tëgg la padd ko kolma la ci Lac de Guiers numéro un daal laa doon gis mujj mujjoon gis. daf ko lan bëri mais euh, euh, euh, Gris 2 daf koy bëri waaw Forza itam day bëri padd te padd dafa am solo ci làmb xale yi xanaa xamu ne làmb dafa dem ba page mille heure boo jumee ñu daan la. Oh, du bëri tant que jàppante amul bëri commencé gul bu jàppante amee nag ci la sukkar bi am xatar bi am wéyale am wéng am. kolma am nooju am mboot am padd am kal am kal ak padd bokkul. mais xale yi léegi bu ñuy lewaatoo bu leen abit bi waxee bëreewu leen ñu ne ko ñoo ngi bëree te ñoom dañuy lewaatoo dong yaakaan ne ñoo ngi bëree. xam nga dañu euh, mënul bëri xam nga lu ñu mën xeex. xeexu mbedd nag xanaa gisoo xale yi koo ci mu ne dama lay yóbbu ardo hmm. dama lay yóbbu ardo amul amul solo mais boo xoolee diggante Euh, tey Modou Lo ak euh, Eumeu Sène la ñu bëree keroog seen premier combat nga xam ne keroog euh, bëre dam la lu Eumeu seen lal rek Modou Lo tegg ko di nga boo gisee mbër yi ñu bari naan la de Guiers mënta bëre ku naan la de Guiers mënta bëre mënoo bëre wala xamoo bëre Lac de Guiers daq bëri ci làmb ji xam nga lu tax. loo def mu dindi ko li muy def doo ko dindi. kenn mënu ko cee daan. kenn mënu ko cee daan kenn kenn kenn. masxaa gis Lac de Guiers mu ñu dëj wala Lac de Guiers mu tëddee wet wala Lac de mu jaaxaan. mës sa am. kon mbër yi ku ci daq bëri Lac de Guiers amoo ci xam nga lan la. Mhm. mbër mu ko man na ko daan. ku mën a daan ko moom rek ngay wax ci biir mbër yëpp moom rek nga mënta limal ñetti defet kenn mënut a wax ne la dëgër daan na ñetti defet. ne kese la jot a daanu benn dong la daanu te benn ba trois appi la du quatre appi sax daanuwul keroog de. billahi daanuwul mais euh, làmb day toll foo xam ne euh, dafa yéeme daal moo tax daal euh, làmb daal. Euh, nekk na loo xam ne xale yi il faut ñu jàngiwaat bëre waaye kii yàlla teg ci bopp CNG bi na xam ne ñun dey bi ministre bi def consultation woo nañu maag IPO wax ak ñun ñu wax ko lañ ko wax mais damay seereel ne ku nekk ci làmb muy mbër meeg muy ménager beeg muy ñëpp xam nañ ne làmb defaluñu dara ñun ñoo defar làmb ñun ñun ñoo defar làmb te amu ci menn mbër moo xam ne tey yaa ngi wut ay ay ay ay yaa ngi récupérer ay cent millions te guddi nga wooñu waaye père jàppale ma waay père damaa bëgg yóbbu sama ay màkk per dama bëgg jëndal sama papa kër te buñ ko amee ba pare nag duñ la geesu mbër yi ku ci gën Balla Gaye amu ci ku ci gën Lac de Guiers amu ci man maa ko wax man ña man day xawma kër mbër duma dem kër mbër waaye kitaabu naa ci rabu samaate maa fil ard ne Balla Gaye bokk na ci mbër yi faj soxlay yi euh, ñi bokk ci làmb Lac de man daf maa bàyyoo man ma doomoo ko sama doom la loolu ragal lu ma ko wax ñëpp àddina bépp di ma dégg parce que dañ ma koo dénk ma ba moo ma fekk ca bitigu Aziz Diop ca tali mag booy bi jóge entraînement mu ne ma per ma ne ko ah, mu ne ma xale bii laay forme Mama Ba dama ko bëgg a def roi des arènes man nag bés tey ma ne ko ah, mu ne ma dénk naa la ko ma ne ko barka Axmadul Xadim naa naa ko jàppale kon bu Mama demee barsax la dëgër toll fii mu toll la ma waxoon ak Mama dara du ci dara du ci tax ma koy jàppale ci kàttanu yàlla mbir yëpp nag samay doom lañu su ma ci yéenee benn mbër defet yàlla bu ma Seydina Muhammad ram yamal xiyam mais nag am naa sañ-sañu mbër moo ci jox cër jox ma ci respect ma coow la bu ma waxee ñu déglu ma te it euh, boo dee tànn tey euh, euh, combat yi ma fekkee ñu bëri fekkewuñ ko ñu bëri tey boo leen waxee Bécaye 3 xamuñu kan la ñu bari boo leen waxee Mbaye di Diop la de Diender xamuñu kan la ñu bari boo leen waxee Landing xamuñu kan la Giren Thior ah Yaako Sarr ah, ah, Géej Diop mais ñooñu Thiaw Mbaaw ah Ousmane Meg Mbaaw Ousmane Diop ah euh, Ousmane Ngom Papa Diop le champion afric moom la ñu waxoon ne le jeune champion de Pikine est rompu aux techniques et à la lutte gréco-romaine avec un pied plâtré mais la tête ndax moom rek moo am médaille keroog booy bambara fa mu jóge ba ëgsi fi mu fi mu àgg tey ba drapeau des arènes sénégalaises la ñibbiwaale barsàq mu mujj jël drapo des arènes sénégalaises mais drapeau boobu tey euh, symbole la tey bu ñu jëloon drapeau boobu tey ne drapo bi diw jël na ko diw jël na ko diw jël na ko diw jël na ko ba ci booy bambara la mujje arène sénégalaise jeex drapeau bu mënoon nañ ko jaay ay millions parce que symbole la ñu bàyyi ko sax di ko di ko di ko di ko waat mais daraay làmb lamb amul continuité daal ah, voilà daal boo dee jeexal nga boo màggatee jeexal nga làmb yëfi ndaw la waaw yëfi ndaw la mag ñi dañ leen di gunge rek bi nga nekkee ci làmb léegi ban combat nga ci seetaan wala ban combat nga fekkee mu nekk combat boo xamante ni marqué na la ci làmb li ma naqare woon ci làmb ki ma ko fajal mooy mbay Gueye le lion le le le tigre de xam nga lu tax dama doon nit koo xam ne musuma supporté euh, musuma am mbëru séeréer Doudou Bakassar man fi daan ñëpp taxaw digg arène sénégalaise ne góoroo góor maa man Falay Balde daan ko ma supporté Falay Falay Balde pare ci lamb Robert man fi daan ñëpp Mbaye Gueye dikk daanal ma Robert ma ànd ak Mbaye te booba may tëggal Pape Diop di supporté Mbaye Gueye xoolal keroog ba Pape Diop di bëreeg Mbaye Gueye <laughs> maa maay tëggal pa maay tëggal Pape Diop di supporter mbay Gueye il faut di tëggal euh, euh, euh, Mbaye Gueye. mais loolu doy na waar. xam nga keroog lu ma dal nag dama xam ne li bëgg di am am am solo xarita ko solo li bëgg di am am am solo nga ànd ak sa gaayen depuis enfance ngeen bokkandoon école nga tëggal ko mbapat tëggal ko arène ba tey muy bëreeg mbay Gueye keroog li may bëgg bëgg bëgg Mbaye Gueye bu ma sañoon Pape Diop da koy daan parce que keroog maa tëggal Pape Diop nga xam ne kon làmb nekk na beneen affaire boo xam ne euh, ku ne mën nga cay gis sa bopp waaw ku ne rek mën ngaa gis sa bopp ci làmb. lan moo lan moo la gën a metti ci làmb. te te tey na nga laaj na ma loo xam ne lu doy waar la parce que li ñu mett ci làmb mooy. sunu cër lañ ñu joxul ñun parce que kenn mënta wax làmb te waxul tëggkat bi sunu doom yi waa kër Pape Seck yi maîtriser nañu làmb ji ba nga xamee écrit yëpp ku ci ñëw rek xam nañ lan lañ lay tëggal kon ñooñu maîtriser nañ làmb kon ñooy tambour major làmb ndi ko coon a dem bar barsàq bàyyi ko làmb ji muy ajartu ndey ngom mbàmmiloor ay doomam ak ay rakkam topp ci ginnaawam ñoom nabu yaa daanak ñoom Ayda Njaay ak ñoom Njaxat ak ñoom Pap Njaay ay dëmb ba ñoom Demba Gile kon ñooñ ñooy woy làmb mais seetal làmb ju joo gisul ippongaar yi ñoko bay ci digg géew bi mais loolu yàllaa ñu ko defal mais loolu ñu ci yàlla defal nag ñu dem nekk ci ba ñu nekkee jeune ba nekk màggat mais làmb war nañoo defal dara mm, ah du benn promoteur bu ah xanaa Pape Abdou Fall Pape Abdou Fall day man sañoo décorer ay eh, chaîne à musique yu mag mag Hippo loolu Pape Abdou Fall def na ko mais làmb jaadu na sax le ministre le président de la république ne ñaari paay yi ni ñu sonn ci làmb eh, bés bi dañ ko jagaleel ñaari paay yi muy seen làmb lu génn ci làmb ji ñoo ko moom ñun ñu mën a jël suñuy euh, euh, lettre de parenage seet ay doomu aadama yi yaakaar ne bu ñu leen ko joxee jàppale ñu loolu bu ñu ko defee ba pare sax mën nañ faa doxee micro microcentral ñu micro central bu leen neex nag seet nag fa ñu jëlee làmb ak fi ñu indi làmb ñu jox ñu suñu suñu àq dafay lu jaadu dafay loo xam ne euh, buñ ko dee wax sax day mel ni daf ñoo naqari mm-hmm. mais naqari wuñu daf dafay lu jaadu lu jaadu nag boo ko waxee ci réew mi ñaari paay yi ñu sonn ci làmb ñaari paay fi ñu jële làmb fi ñu indi lamb xam nga lu tax Balla gay marqué ma moo tax maa ngi nuyu de passage Aziz Abdou Aziz Ndiaye euh, di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm xam nga Balla gay lu tax mu marqué ma Balla gay woy juróom la jëkk a bëgg ba muy laataa bëgg kenn Balla Gaye dafa dem ba dugg biir arène daan maam Ngor Diouf bu bool ñëw fekk ma ca Assane Diouf ñu bare ngi naan Assane Ndiaye tëgg làmb jooju mais déedéet Medjo production moo tëgg mbapat moomu teg benn télévision bu mag ak quinze mille francs yaa ngi may dégg mayor micro central man la fay Balla Gaye ñëw ne père ma ne ko ah, mu ne ma nañ ma bind ma ne ko bind yow booy yi ci bëre premier combat arène dootoo bëreeti mbapat mu ne ma père ma ah, mu ne ma télévision bële laa bëgg a yóbbul sama yaay sama yaay kër gi ñu susul fa lay télévision. ñu bind ko mu daan ñëpp daan tafaatin demi final tafaatin mii. wax. waaw tafaatin la daan demi final daan Alioune Seye numéro deux jël. Euh, euh, euh, meen bu géejawaay bu géejawaay moom la bëreel final daan ko jël euh, euh, euh, télévision bi ak quinze ak quinze mille francs ak douze mille francs ki mu ki ñu daan moom lañ final moom lañ jox trois milliards mu jël douze mille yi may dem fay nañ ma sama micro central ba may dem mu daw dab ma per per per ma taxaw mu génne ñeenti téeméer yi ne ma per ma ne ko ah, am ma am ne ko lu ma koy doyee man fay nañ ma sama micro central xoolal booy yi ànd ak yow te nga war a ñibbi ba géej way war a jël su père mu ne ma per ma ne ko ah mu ma téyel ma sama ñeenti téeméer yi ma wax la ma téye ñeenti téeméer yi. ma ne ko ah mu ma dama bëgg nga jàppale ma ji nga sama doole ji ma ne ko ah mu ne ma kër gi sama bàyyi jaayoon moom laay jëndi jox ko. barke ti yàlla Muhammad ma aalu nang ne ko di nga nekk roi des ma ne ko billahi di nga nekk roi des moo tax keroog ba mu daanee ni man la jëkk a woo jàppale ko lu ci ñaar ñooñu ma wax rek sama yaay sama papa moo tax yàlla may ko li mu ko may mbë mbëri làmb yi man munu maa wax mbër mu réew ci man. Mm-hmm. Euh, euh, euh, Modou kenn gënu ko yore ci man. <coughs> Gris sama papa ak ma daan ànd. Gris sama rakk la sama papa ak papam ak alaaji Malick Sow ca jamonoy Ndakaaru dans les années cinquante sept cinquante six cinquante sept cinquante huit paa yooyu ñoo daan ànd sama papa alaaji Malick Sow bi muy laata gaañu la ma wax loolu ne ma xanaa xamu ne Gris Bordeaux mii ngay jàppale sa rakk la parce que man ak papam ak sa papa ñoo daan ànd loolu sama papa Malick Sow ma ko wax ama seen sama sët la papam papaam maay jaayam moo tax mu tuddee ko sëtu Samba Xoyaan bi Ama Balde papam laa daan supporter Falaye Balde ba pare papam am lu ma waxoon ma sa toog ma di ko interview boo maa nga Océan FM ne ko Falaye mu ah, ma ne ko ci sa doom yi ko yaakaar ne moo lay doon ëllëg mu ne ma ñoo bay bàyyi ne ko ah, mu ne ma papa Balde fit wi rëy na mën naa xeex du ragal waaye du mbër ne ma Souleymane Balde ma ne ko ah, mu ne ma taay bee ko yàqal kenn dàq ko bëri. ne ma sama kër ku fiy takk ngem Pathé Baldé la dàq bëre mais du du du mbër xam nga sama yaakaar kan la ma ne ko mu ne ma sama caat mi sama ngemb li ma daan ngemboo bés bu dugalee cuisse bi mu yem ci moom lu ma naqare woon ci ci làmb dina dinaa ko am kon yaakaar naa ne Fallay xamoon na héritier am xamoon na itam euh, ne billahi kat digganteem ak Malick Niang euh, dama cee am njàngat ba nëgëni dañoo indi avance bi ci biir kër gi Souley Souleymane Balde ne du fi dugg yaayu waaw yaayu yaayu yaayu amaa itam ne avance bi du fi dugg Malick Niang avance bi du fi dugg Falay ngi toog ci buntu kër bi Falay woo amaa ne ko lu ñuy wax ci buntu kër bi dañuy coow lu mu ne ko papa. boobu yëgul yëgul li ko papa sama avance ak euh, Malick Niang la ñu andi ñu ne du fi dugg mu ne ko da ko ragal. mu ne ko man papa nii ma toll bu ma ragalatee sama morom jarumaa jox lekk mu ne ko jëlal xaalis bi da nga koy daan mu ne ko loo loo ci jublu ci pour jël xaalis bi te ñu la koy tere mu ne ko papa dama bëgg a jël xaalis bi rek faj la ci da ngaa feebar mu ne ko jël ko da nga koy daan bi bi bi combat bi laataa ñëw fa lay balde gaañu na nga xam ne kon kii am na fu fu lu papaam gis am na itam lu ko papaam ñaanal. kon mbër samay doom lañu ay ñaan nag euh, sëriñu làmb amul ñu bare nga koy wax. sëriñu làmb waaw xam nga bu njëkk dañ daan gëlëmal nit doo gis wala ñu takk la say loxo du jóg léegi nag dañ lay liggéey moo tax làmb dangereux ñu bare ngi récupérer xaalis bi xaalis bi bari na xaalis bi bari na mais après parce que ji nga alxuraan da lay topp. bu ñu la ci liggéeyee da lay topp di nga bu demee ba jàpp dootul bàyyi bu njëkk dañ la daan dañ ay pël ñoo daan ñëw ci làmb ji takk say loxo say loxo du jóg wala ñu gëlëmal la doo gis ki ngay bëreel léegi nag dañ lay liggéey xoolal léegi li mbër yi dépensé ci ci sëriñ parce que xaalis bi la millions yi ku ko encaissé ku ne boo demee ci sëriñ si itam ñu laaj la ay millions ah Ah, mais moo tax làmb àgg na foo xam ne euh, dafa yem ci mbër yi rek bu ñu bëggee nag làmb yaatu na tas ni muy tase mooy géwel bii tëgg daf ci am daf ci am wal woykat bi woy daf ci am làmb waaw kii présenté mbër yi ambiance làmb làmb ji parce que mooy maître de cérémonie. dañuy dem ba ci grand combat bi. ñëpp ñi dañuy tiit ñi dañuy jaaxle ñi dañuy concentré wu mais yéen dong la ñuy dégg. ngeen naan kat appi jël la ku ñu doo nga daanu yaa ko yëg. mi ngi noonu yoo xamante ni nii. doon ambiance. Mhm. Euh, euh, am na ñoo xam ne tey bu seen bët di bëri bu ñu sexul suukar léegi crise te lu boo gisee ñuy dë ñuy dëfal doomu adama yi ñi nga sunu ay ca ay ca jooju ah, ak noonu ñuy waxee ak yi du len lu dëfal leen kenn ku ci nekk ànd ak sa sago xam ne lii sport la. kii day daan tey bu ëllëgee mu daanu kii daanu tey bu ëllëgee mu daan loolu mooy lam mais boo ko jëlee nag teg ko nag loo xam ne xare la rek day daal di doy waar daal waaw daal di doy waar daal. léegi su ma ñëwee combat yi nga xamante ni jot na fee taxaw gis nañ ki nga xamante ni mooy Modou ak Ama Baldé seen premier jàkkaarloo euh, daanaka yeggul te mu nekk làmb joo xamante ni làmb ju rëy la waaye amoon na làmb yu ko gënoon rëy ndax Modou Lo Balla gay gis nañ ko fi keneen ak keneen gis nañ ko fi mais làmb jooju ñu gis ne dafa taxaw rek coow li tàmmale noo ko nga gisee boobu combat. Euh, combat bu bu neex mais combat bu dangereux. waaw man li may li tax ma ne combat bu dangereux la. il faut yi yow encaissé wuñu xaalis joxuñu leen xaalis te seen mbër lamb jey place liggéeyu kaayam falay lay amee gagne kon boo ma dee gunge fa ma ame fa may amee gagne-pain da ngay jëkk ngay jëkk dawal sama sama diggante ak yow jàmm foofa da nga ma fay wutal jàmm terewuñu kenn mu supporter euh, mbërëm terewuñu kenn mu tàcc mbërëm terewuñu kenn mu yuuxu mbëru jàmbur seen affaire la mais euh, indi ay violence xeex xuloo buñ la yóbbu yóbboo police mbër ma du la seet si danaan xawma la ñu ci baari loolu dal na leen sol te seetu doomu aadama def deli ci bunt bi ñu duma la yóbbu la police nga naan nga dëkk mbër mi ne leen kii xawma ko sax waaw mais ko kooku nag doo ànd ak sa sago nag seet na damay ñaan promoteur bi nag léegi donc sama doom la di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm moom itam parce que def na lu rëy làmbam jële passé diggante Gris Bordeaux numéro deux ak euh, Reug Reug dafa dugg ci lamb ji rek songuñu père jërë ngeen jëf yéen yéen ay làmb yéen yéen ay làmb loolu nag euh, reconnaissance boobu mu reconnaître nañ ñooy lamb kon lamb war nañoo defal dara mais ku lamb defalul dara boo dee làmb it da ngay sonn ci làmb rek mais doo daj ah te koy lamb ku ne danga ngaa bëgg a ah bëgg a nga def kon yaakaar naa ne euh, fii làmb toll daal euh, Modou Lo ak euh, Ama Baldé man li may conseiller promoteur bi buñ ko tëggee arène nationale waaw <coughs> arène nationale dafa nekk ci diggante pikin ak ak ak ak parcelle mu nekk ci digg bi waa parcelle bu ñu fëxee jóge na la ñëw waa Pikine fexe jóge ne ñëw bu lamb ja tase mari daytaal te foofu àll la man bu ma sañoon dañ koy të tëggee Léopold Sédar Senghor buñ ko tëggee Léopold Sédar Senghor euh, euh, Ama Baldé buy ñëw jaar ci autoroute bi dugge ci euh, porte centrale bi kële di Modou jóge parcelle jaare vingt six du du duggee porte boobu bu tasee ñi la jaar ne ñee jaar na le loolu daal laa gis. parce que boo xoolee Ama Baldé Papa Sow noonu lañ ko doxalee woon. mais noonu mooy yoon noonu dey buñ ko defee jàmm am. combat boobu daal damay ñaan yàlla yàlla na ci yàlla sotti jàmm muy combat boo xam ne na ko jóom daanu. mais noo ko gisee ci wàllum xeex ak bëre. Ama moom ne Ama moo man Modou Lo da ngaa wax loo neex ku ne Modou moo man amaa da ngaa wax loo neex. man làmb jooju damay ñaan yàlla yàlla bu ci dër mu daanu am di nga bu ci dër mu daanu amul bu ñu jàppante ñoom ñaar billahi wallahi wa taala ki daanu sax nañ ko tàcc parce que ñoom ñaar ñëpp ay bërekat lañu te damaa fekk ñu bëre mbapat ay jàmbaar lañu ay bu ñu ji jàppante ñoom ñaar nga gis ci weccit woo xam ne ci biir bëre mosoo ko gis mais nag bu ñu xeex xeexu mbedd dër mu daanu mën naa am ci ñaari waaw coup perdu da lay dal te ama pied droit lay jiital di xeexe main droite mais nag xam ne képp kuy jiital pied droit euh, euh, euh, Modou Lo dalay am parce que boo xoolee Gris Bordeaux pied droit lay jiital Modou Lo da ko kor faqat ko mu def kat kat appui boo xoolee Eumeu Sène pied droit lay jiital Modou Lo da ko da ko da ko kor dóor ko mu sedd moo tax Modou Lo aay ci pied droit parce que ni mu aay ci pied droit heure bu la doxalee heure boo bu doxloo ci loxo ni joram nga dox topp ko. bu la bu la bu la koree nga àgg. moo tax combat bu garaaw a noonu bu bu boo xam ne man daal li ma gis mooy ku juum daanu. waaw su ma jógee ci loolu damay ñëw ci combat bi nga xamante ni fan yi moo indi coow ci dëkk bi ndax euh, Balla Gaye moo ngi waaj ki nga xamante ni mooy Bombardier ñu naan revanche la dina ko daanaat wala deux heures lay nekk ñu diggante ñëw ci Boy Niang mu jël Tapha Tine ñëpp na woo ko woon jël ñoom ñaar ñu ñu waaj combat pareeguñ ñu dégg ne Balla gay lekk na avance su Boy Niang est-ce que teelul ci Boy Niang. Euh, Boy Niang xale bu ndaw la mu ngi soog a juddu mu juddoo yàggul. man bu ma sañoon Balla Gaye sa lay jëkk a jël bala moo jël. Tabaatine maa ko interviewé maa interviewé Balla gay ci kër Abdou Aziz Ndiaye ca Tiwaawan parce que dañ naan combat bi du taxaw combat bi du taxaw ma fekk ko ci biir kër Abdou Aziz Ndiaye mu ne ma pare naa. moom Balla waaw ne ma pare naa moo tax jàppante naa ci sax ak woy juru euh, Boy Niang parce que bi ma coowee ci combat bi di coow ci combat bi ba bañu ñu si ko. wax moom dafa bañ prix bañ ko fay man xaw ma ñaata lañ ko fay xaw ma nu mu demee mais bi ma toogee di def sama émission nag ma ne xaw ma ku bañ loo booy ñaaw mais bëgg ko mais bi sama émission pare papa papa moom ma war sama portable saaga ma ne ma man maa bañ waaw ne ma maa bañ loo sama doom ma ne ko loolu sama yoon newu ci mais day boo xoolee fi ma jëlee xale bi ah ndax yaayam aana. yaayam aana sama jigéen la ba pare euh, sama tante ji nga xam ne moo jur samay rak ak aana ñoo bokk benn bay alaaj sama nduku maana leen jur kon euh, booy ñaa sama jarbaat la mais sama doom la ndax dëggool dëggool nekk sama rek mais loolu jàpp jàppewu ma ko dëggool parce que nit ki yaramam day tàng rek ah mu waxee noo xam ne xañ na sax du jukko mais du ñàkk respect bu ma dëggool ñàkk respecté dëggal xale bu ma respecté la wax dëgg yàlla euh, moo tax gis nga Balla Gaye billaahi wallaahi wa waxoon naa ko di nga Bombardier Balla Gaye moomu daanoon du Balla gay mii de maa la ko wax man ñoo ko bàyyi te dinañ toogaat fi ma waxaat la ko Bombardier ma Balla Gaye daanoon du boobu Balla Gaye moo ñëw du boobu Balla gay de Balla Gaye combat bële benn amu ci doole man xam naa ko ñaareel ba il était ñetteel ba estafam bëgg ñu woon combat bi. waaye ko mhm. ak bëgg kum bëgg xam ne xaalisu lamb lañ ko ngénte moo tax mu sacrifier boppam keroog. waaye keroog bi ko bi ko ko Bombardier daane ñu ci bëri ne Balla Gaye dafa feebaroon Bombardier dafa ne leen na dem faju ba tane bu demee ba mu lekk na tane na bu ñëwaatee ma daanaat. Ah, bii de foogu ma ne lool dina am man Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi. làmb nag dafa tëradi. nu ne la mën a dikkee ëllëg. mais nag Bombardier def ci xelam ne. bala Gaye mu daanoon du Balla Gaye mii. Balla ga mi muy bëreel du Balla Gaye mu mu bëreeloon. boole koog sarax leen ndongol daara mbaa mu tibb ak dooleem dem. Balla Balla loolu lay bëree si. sarax leen ndongol daara. mbaa mu tibb ak dooleem dem. Bombardier bésu combat boobu di nga xool lii ma la wax xam nga lu muy indi. observation sans déclencher. taxaw ñoo di lii. maa la daanoon damay léewtoo rek di la déglu. léegi nag ba di nga balla bu doxee ci koom Bombardier dina dox fekk ci ko moo tax ma ne la dóor mu daanu sax mën na am foofu te balla dafa dafay dafay mbërum wet. Mhm. heure boo dalee ci wet heure boo dalee ci wet gi mu boot la ñoom ñaan yëpp mbëri wet lañu Bombardier it loolu lay bëri mhm. Bombardier heure boo. xool ni fi def tay jën heure boo dalee ci ci tànk yi mu tëgg la moo tax daal comme maa noonu boo xam ne ah na ba Bombardier def ci xelam ne Balla Gaye moomu daanoon du Balla mii de booy Niang nag euh, amul dara lu muy euh, perte ci làmb parce que ba am ñetti victoire yu mu tegale yoo xam ne ko daan daan nga ay kàngam saa kajoor ba mu koy sëq di ko sànni kenn xalaatu ko woon keroog ba muy daan bàyyi ma ñoon kenn xalaatul woon loolu keroog ba muy ba muy ba muy ba Sa Thiès kenn xalaatu ko woon te day liir làmb ak Garga Mbossé day liir làmb day liir làmb ji nga euh, boo boo déggee ñu ne xar dawul dafa wuti doole loolu lay bëre heure bu dawee nga topp ko billaahi wallaahi wa taalaay bu freiné dina la dóor ku bu la dal te na la dina la jàpp fi mu bëgg te heure bu la jàppee dàqu ko bëre Balla nag la kenn mënta nat Tapha moo war a man ci làmb ji moo war a man ci ji bu fekkee ne nekk na ci loxo yi ko war a yor loxo yi ko war a yor mm-hmm. buñ ko yoree lamb jëpp ñëpp abal ko waaw téléwu la bëre loxo yi dëgg nay tubaab. waaw ah, waaw loxo yi dégg nay tubaab boole ko téléwul bëre li ci des mooy encadrement la amul jàpp mais jigéen boo amee jàpp lamb ji moo ci man de diggante Gris Bordeaux ak euh, Balla Gaye nag leeralaat la. mais ñu ñëw ci Balla ak Boy Niang tuuti rek. ñu ñëw ci Balla Gaye moom xam naa ne mooy làmb ndax fi mu toll nii ñi fi gën a ës la jël tegle leen te saaga dégg naa ne sax ci ay ci ay ci foo naa ci boo xefee dina ko ñeenteel wut beneen ñeenteel avance teg. xam nga ñeenteelu avance boobu sax na dugg mais dama lay wax benn affaire waaw dama lay benn affaire ci Balla Gaye. ci Wassare Lamb waaw dama affaire ci Balla Gaye. kitaabu naa ci rabu samaate maa fi arne ku ku koo man ku ñime Balla Gaye xanaa xamoo ne Eumeu Sène day ragal Balla gay ba daan ko Eumeu Sène Balla gay ko man fuuf man maa ko wax man ñox Balla gay mën fuuf Eumeu Sène mais Eumeu Sène da koy ragal ba daan ko day ragal pa système la Pape Diop dala la daan ragal ba daan la ba sonn maa ko daan tëggal. li ngay wax dama koy dëggal ndax boo xoolee kii di Modou Lo ñëw ne tey damay daan Balla gay léegi léegi Balla Gaye nax ko daan ko. dama ne la mbër dang koy ragal am dafa am euh, boo ko waxee nag dañu yaakaar ne da nga contre mbër mële wala da nga kii mbër làmb dafa bari ay sem kii da ngay dox daan ko kii da ngay doxe wet daan ko kii da ngay arrière daan ko mais làmb ji léegi boo arrière ñu da nga maa ragal te piège la. ñun dañoo bëgg sport te mënuñu ko. mu ngi noon piège la. dégg dégg dama ne la Eumeu Sène day ragal toujours ñaari jël yi mu ko daan yëpp da koy ragal ba daan ko parce que Balla Gaye képp ku dëggal sa bopp bu mu fekk la fa nga ne. mais xoolal euh, li tax ma ne la digganteem ak euh, booy Niang day garaaw boo xoolee digganteem ak Modou Lo Boy Niang dàqu la bëre Modou Lo. Boy ak lu mu mën a mën a mën a bëre dàqu la bëre Modou Lo mais ku mel noonu. Balla Gaye du la may nga réfléchir boo xoolee ni mu ñaari jël yi mu daan yi mu daan Modou loo yëpp du ko may mu réfléchir du ko may mu noyyi du ko may mu xelaat parce que dafa am ñoo xam ne bu ñu xelaatee rek nga am problème booy ñaan ku ko bàyyi mu xelaat moo la man ku ko bàyyi ak sagoom rek moo la man moo tax la la la Balla Gaye di indi moo ko xam mais booy ñaa moom loolu lay indi bu ko ball bu ko bu balla ya yaakaar ne booy ñaa da koo ragal day def erreur parce que booy ñaa loolu mooy forum. stratégie am. stratégie la dafa daanoon rakam bo euh, Balla Gaye di bëri si ñaar revanche rakam ak nag dëggal boppam. ndax keroog bi muy jël Sa Thiès Balla Gaye moo na ko doyal ak Sa Thiès soo soo soo jugee ci moom boo ñëwee ñu bëri man ak yow. jeex na mi ngi noonu moo tax ma ne la. combat bi ñaari préparation la ko Balla di préparé revanche bi mu war a revanche di digganteem ak euh, euh, euh, Sa Thiès bi mu daanoon ak nag li mu doon te bëggul mu effacé wu booy ñaa bu daanee Balla Gaye yée te moom affaire am baax waaw moom fu mu daanee Balla na na xam ne nag lamb ji moo ko moom waaw digganteem ak Tapha Tine nag laa ragal lool li tax ma ragal ko mooy euh, Tapha Tine dafay euh, mbër moo xam ne boo at buy day wàcc ci ay tànkam di la jam gauche te droite ko kon kooku boo ko boo ko doxloowul rek doo ko daan il faut nga doxloo ko. da jam gauche te droite. da lay jam gauche ci te droite. droite bi heure boo dee yëbar ñett bu dajeeku bu la ko dóoree nga sedd kon li koy daan moom da nga koy doxloo boo ko doxloo nag mën naa juum parce que un pas deux pas bala moo teg troisième pas nga jàpp ko waaw man nga mën ngaa am dara moo tax dal komba yooyu benn bu ci nekk combat la. damay ñëw ci combat bu mujj bi ndax combat boo bëri na coow ba ki démb maa ngi ci nuyu waa fm GFM euh, ñoo ko tëgg ci diggante guy gi ak ki nga xamante ni mooy Reug Euh, ñu koy félicité di ko encourager gis nañ ko euh, làmb ja mu mujjoon def mujjee cee jëlee ñàkk waaye di ko wax ne sport noonu la ñun Sénégal bëgg nañu sport waaye mënuñu sport ndax ñun ni ñuy sport mooy chaque jour ndam ak kii daan rek mais saa bu ñu daanoo ñu ne cuuna la te dafa yaafus te làmb du noonu muy bëgg ki nga xamante ni mooy guy gi guy gi nag ndaanaan bu nekk guy gi daje na moom xale yi gën a ës wala ñi gën a të guy gi jëflante na ak ñoom waaye dafa daje koo xamante ni mooy rëgg mu nekk xale bi xam te bi mu ñëwee yàggul waaye képp koo xamante ne da ngay seetaan làmb xam nga koy rëg naka nga gisee boobu làmb. ñoom ñaar tey ma wax la loo mës a dégg xanaa xamul guy gi maamam champion la. guy gi mel waaw xam nga kuy maamam. Cheikh Thiénaba moo fital jiyaar xare Samba saajo ne àll ba alluwa allahu akbar xam nga ne kon 1895 la maamam tëdd foofu Cheikh Thiénaba maamam dans mille euh, mille sept cent quatre-vingt-cinq la fital euh, euh, Samba Sadio da da daan wax naan ñi ñi ma àndal ñëpp dañuy sangu janaba sol seen seen seen perkal nga xam ne foo daanoo fa lañ lay gas suul la kon kooku maamam champion la ba pare nag mu wane ci làmb ne len dong day la cana ba bëggul fecc way waaye leneen lu lu lu lu jóg xare war ca am rek ñu def ci seen pastéef Reug Reug nag doon na mu bëri ñaari yoon moom it euh, bugguma maamam mi jur baayam mbër la Modou Kan maamam mi jur Papa Kan mbër la nga fàttaliku nag mbër ya newoon caaro yi ñoom Sambay Fall ñoom Sambay Sall ñoom Ablaye Diouf Fall ñoom Ray Sigar ñoom Ndata Sambarga Papa Njaate Njaay maamam moo jur yaayam moom Reug Reug ki yaayam champion la ki jur papam champion la nga xam ne kon dafa doon mbëri ki ndey ak baay muy combat boo xam ne nag combat bu doy waar la parce que xam nga lu tax rëg-rëg dafa dem ba dandale mbappat yi ndaanaan yi fi nekk yëpp mu daan leen kenn ku ci ne façon ba mu lay daane bokkul ak ba muy daane sa morom ba guy gi di ko xam ne lu mu ron mu jóg lu mu ron moom heure bu jàppee. bu boobu jeex na bu duggee jeex na moom ak bëre boo mënti am yàllaa ko defal loolu. Mm-hmm. Euh, muy combat boo xam ne nag ñoom ñaar ku ci daanu rek du pertement parce que Reug Reug dara du ko tee dem mm-hmm. Reug Reug bu daanee guy gi na waa Pikine am problème waa Pikine nañ am problème trop Eumeu Sène Ama Baldé Boy Niang kenn ku ci nekk di nga am problème. Ah, ci nan la ñuy amee problème guy gilee lay bu bëree guy gi dama bu daanee guy gi laa wax ñoom ñëpp dinañ am problème parce que seen kaw la jëm ci. seen jàmm seen jàmm day jeex. wax ci kawam la jëm ci. ci kawam la jëm ci ci ñoo ñëpp na day ak guy gi nag dafay mbër moo xam ne mënoo koo natt parce que day këpp yalwaan nit. da nga yalwaan ba woomle mu dikk mu dikk këpp yalwaan yëpp ji bu jatee ba ñëw ji nga jat boobu muy jat noonu dem naa cene ba laajte ñu ne ma loolu muy jat mu ne ko mu ne boo ko jatee ba pare boo boo laxasoo garab boo ko buddee ren yi génn barke yonent bi wala ñu ma ko waxee ca cena ba na ma na ma na ma jatoo muy jat boo ko jatee ba pare laxasu garab boo fuddoo ren yi génn kon nga xam ne kon kooku lo dafa am lu mu àndal moo tax muy combat boo xam ne nag eh, et puis eh, ñu baax tegu koy itam mm, ndax eh, lépp lu jóge ci Youssou suñu jarbaat la ba pare nag bëgg aar parce que mënoon naa téye xaalisam bañ koo dugal ci làmb ndax mi ngi taranga il la musique mu ngi ak rajoom ak waaye bu dee dugal alalam ci làmb pour jàppale waa lamb ba tax euh, nga xool itam Pape Thiali euh, diggante guy gi euh, diggante Tapha ak Boy Niang combat boo xam ne moom it saa yu tëggee lamb rek muy prépare muy lamb ju la le Donkin de l'arène nag moom moom moom lamb ji moom parce que waaw parce que combat yi mais mais balaa ma balaa balaa ma tëj ci loolu. ci ni muy tëggee làmb di ci génnee presse bi nga xamante ni fépp fu làmb toll wala ba euh, promotion bu ci am ñoo koy def nit ñi ci boycotté non nan nga ko gisee loolu. xam nga Gaston wutkatu xaalis la. Gaston lépp lu xaalis àndul du ko def. loolu moom maa ko maa ko wax man yoko gis nga xam na ne euh, signé naag ay ay ay ay ay télévision. jaay leen la mu leen di jaay. yéen bu ngeen ci jotee ñële seen marchandise du jar foofu la noonu la ko noonu la ko calculer de du neneen muunin bi rek a tax mais bu fekkoon ne tey la télévision yi fay yéen réseaux sociaux yi fay nañ ko kon yéen ñëpp ngeen dugg làmb bu ñëwoon réseaux sociaux yi tey temps la ñuy fay billaay wallaay wa taala bu ko encaissé yéen ñëpp ngeen liggéey mais euh, ñuy gërëm itam Pape Abdou Fall moom itam tëgg na bés bu rëy diggante Papa Sow bés gënu ko rey mais nañ def attention combat bu rëy ngi ñëw mooy bi ma demoon barki dem maag hip-hop diggante Gamou Gueye ak Sokh combat la boo xam ne ñaari xale lañu yoo xam ne kenn ku ci nekk da dem bay bay ëgsi e, e, e, ci kaw tund ñu boole leen ñoom ñaar di nga ko daanu wàcc ko daan yéeg moo tax muy combat boo xam ne ñoom ñaar yëpp te daaw lañ ko waroon na bëree keroog bañ ne dimanche bi di ñëw la combat bi am keroog lañ ne corona bi moo dugg. samedi bébé Diène moo ba Fourrière ñu woo xëy dimanche ba la dogal ba daanu. wallaay mi ngi kon nga xam ne euh, vraiment ñu ngi féliciter promoteurs yi nag ndax kenn ku ci nekk yaa ngi seet li suqi làmb li yokk làmb li may wax toujours ne la clé de la connaissance d'autrui et la connaissance de soi-même nit ki bu xamee boppam rek bëgg cosaanam rek yàlla mën na ko cee defal jàmm te sa làmb dafay loo xam ne euh, foo mënti jóge ci àdduna bu ñu dikkee nañu wane cosaanal réew mi loo génn lu dul làmb rek euh, juum nga parce que bëre ak dóor takkoo gan takkoo dara fii la am au Sénégal amul feneen léegi lañu ñu américains yi toppandoo ak allemand yi di def seen kaaf yooyu di doronte ko mais xool diggante tuus rek mbër mi tuus dugg rek ànd ak ay kii sotti ko soow def loolu day li ci ne nga xool ñu dem bay bay bay bay nga dégg euh, waykat yi way ah mais dafay nekk affaire boo xam ne ki koy dund ci kaw euh, amateur bi xolam da day sedd guyy waaw mais euh, di gën a ñaaxaat xale yi supporters yi nañu ànd ak seen sago te làmb ñoo ko moom xam nga chaise yooyu ñu damm foofu ci làmb ji yàq loolu bu ëllëgee tey buñ ci bu ñu arrêté làmb seeni i mbër ko yëg parce que seeni i mbër dootuñ yor dara xoolal corona bi mu fi duggee rek mbër yi ñu ci bëri salit nañu ñu ci bëree bare bare salit nañu mais xoolal bi làmb ji ubbeeg léegi a ah, kenn ku ci nekk eh, eh, promoteur yaa ngi dem di la di la jox xaalis nga daal di am yor sa avance mën a leqale ko ci dara mën a gën a fonk say entraînement mën a gën a jàppale sa bopp làmb daal dafay loo xam ne kenn moomu ko ñoo ko moom di waxaat le ministre Matar Ba il est le ministre des sports ñun ci biir làmb la ñu bokk moom waxoon nañu ne euh, Bira Sène dinañu dinañu woo woowuñu làmb yi fi làmb yi Gaston euh, Gaston ñu fay promoteur be ñu fay ñun tey bu ñu gaañoo ci biir làmb wala mbër dal sunu kaw wala ñu dee ci biir làmb dañuy ñàkk parce que amuñ ci benn garantie benn te ñu nag mbër yay nekk ci biir géew bi nañu seetaat ne président Alioune Sarr mos la tëgg drapeau du chef de l'état mukk te boolewuñ ci moom nag boolewuñ ci ñu ne demuñu mi ngi noonu. gis ngeen boolewuñ ci ñun tamit demuñu di ko jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité am ak ni ñu ko yombalee di leen wax benn yoon ci Wassare Lamb di ci jaajëfal sama cameraman bi kàggu l'infatigable borom bébé bi borom temps yi moom ci nax nenn la dëkk waaye nag des fois day daw <laughs> yoon la de. gis nga ku bëgg yaay nax doom di leen jox dig daje ba beneen yoon ci Wassare Lamb jaa ngeen jëf.